rek muy mm-hmm. français fa bi nga xamné ne aussi évoqué na ko ndax ci biir euh, livre le projet mm-hmm. euh, ci rupture bi bokku na ci li nga xamné ñu amal suñu monnaie locale bu mm-hmm. wa xam nga gaay ñi ngi doon njëkkante am ñuy taxaw naan xam nga ku ne la damay ñëw damay def nangam ak nangam 5 ans la fi am mënul ñëw songandoo yépp te bu ci ñëwee li gën mooy français fa moom day dañ parce que même avant lii sax liggéeyoon nañ ci mais biñ ko liggéeyee ba muy antu ci Hawaii nigeria hmm. té ma ngi félicité président mi ngi won dembu hmm. nigeria hmm. machallah allah ba légui mi ngi. daju ci tankam motax gaay mom fiñ tol ni moy moy <laughs> duñ nelaw. duñ nelaw mo voilà xam nga duñu def ba def liñuy wax écho. gaay ñew rax ko manipuler watara ak Macky def ko écho à la française nigeria lolou mënu ci démat motax gaay bu président Diomaye né dañuy taxawalaat euh, CEDEAO la ñuy gën a jëmmal yenn activiste africain yi commencé di xiiru te xamuñ li muy wax maanaam CEDEAO la bëgg a def CEDEAO des peuples hmm. mais pas syndicat des chefs de l'État waaw mais nga am beneen tour bu tudd neneen ak nga am CEDEAO bu fi nekkoon ba pare te mu baax liñ koy doyee mu mat ko lu gën dañu gaaw a xiiru quoi moo tax démb ñoom la waa ji gën a jox seen toroxal ba pare ne leen toog leen ne yéen ba pare yéen xew wi bokkoo leen ci daa ñëw moom exclure leen. fi ne nii boo xoolee loolu boo xëyee gars yi commencé di ko ko di ko tagg ah, ak di ko nangam mais daf leen waxaale seen bopp. Mm-hmm. parce que mbir mi dafa am fu muy toll foo xam ne suñ bëggee defar Afrique affaire bi du. xam nga yenn saa yi nga jóg kenn ku nekk defe woon ne Sonko populisme lay def loolu lañ ko doon xasee wala yooyu. dañu comprendre mm-hmm. du mbir mu nekk rek na ku ko daan def rek nu nit ki di yuuxoo rek nga jàpp ne keneen ki noonu lay def ak yooyu bokkut yuux yi bokkut. Mm-hmm. am na yuuxu goo xam ne ah ku yuuxu kuy wat wal uh, wàllu la am na yuuxu goo xam ne kuy jooy la am na yuuxu goo xam ne nag ku bég la faaw nga ràññee yuuxu ji mm. oh, da ngay xàmmee ker ci biir lëndëm moo tax ñoom la gën a jox léegi nag loolu fi mu koy amee mooy lu ñuy accompagner lay doon tey yaakaar naa uh, Afrique am xaalisam moo gën mm-hmm. bu mënta nekk CEDEAO maanaam réew yi mm-hmm. am seen xaalis su mënta nekk Sénégal am xaalisam mais bu ñuy dem doone lii la ñuy def ñooy da ngay compter ci sa bopp ba pare. Hmm. bala ngaa jéggi fi nga jóg gi daa war a dëgër maanaam président Diomaye dafa jubóog Sénégalais yi ba pare. Hmm. doo ko dem di jubóog Afrique boo jubóog Afrique ba pare maanaam euh, Afrique du l'Ouest. Hmm. boo noppee du jubóog Afrique soo jubóog Afrique juddoog àdduna jubóog àdduna kenn ku nekk parce que bu ñu fooree ñun ñëpp kenn suñu mbattit xam nga dama ko wax benn waay ma ne ko du lislaam ma ne ko fi nga yegg boobu waaj laa doon waxal ma ne ko mbirum góor jigéen du lislaam rek lislaam dafa fekk ñu bañ ko mhm. lislaam fu mu dugg tame la yor day tame say jukkoo yu wàcc bokk ci li nga kii ma ne ko ñun nag bi mu tamee daa bari li wàcc bariwul bañ ngóor jigéen dafa nekk ci ñun maanaam ak ceddoo dafa dàqonteeg loolu kon moo tax kon tey yooyu yëpp yi nga xam ne tey moom la ñuy wax ci loolu mhm. ak ci wàllu xaalis beeg ci wàllu lu mu mën a nekk lu ñuy def la yaakaar naa bu ñu nekkee fii may ñu balaa juróomi at yee mat mm-hmm. da nga gis bu président Diomaye defee lii muy def ba pare dañ ciy daal di jublu te bu boobaa day ku nekk da ngay wóolu suñ ko waxee Guinée danaan pour pourquoi pas Nigéria moom maa nga ca woon suñ ko waxee Togo mu ne noonu buñ ko waxee keneen ak ba ci Côte d'Ivoire nga xam ne tey kii day daal di antu moo tax li mu def avancé mm-hmm. mais sûrement lentement mais sûrement. d' accord oustaz euh, le premier ministre que mooy dina dem seet ñi nga xam ne ñooy les euh, ñi nga xam ne ñooy ñooy ñooy Guinée. Hmm. ñi nga xam ne dèjà bokkatuñu ci ci ci CEDEAO am na nag ñi nga xam ne ci euh, ñi ngi koy ŋàññi ci ci ci réew mi ne warul dem seet ñi nga xam ne ay putschistes lañ. Hmm. nga yaakaar ni seeti boobu mu leen bëgg a seeti ak waxtaan gi mu nar a am ñoom est que mën na leen boolewaat ba ñu juboo ak ñi nga xam ne ñooy CEDEAO ginnaaw génn bañ fa génn. waaw euh, li ma wax sànq révolutionnaire bi réveillé Afrique mooy Sonko Sonko du pour Sénégal Sonko c'est un missionnaire yàlla daf ko yabal pour Afrique mën a am njiit lu ko jëmmal mu jël cëram ci cëram. parce que boo gisee ñooñu ñoom génn CBAO lan moo tax ñu génn CBAO doxalin bi moo baaxul. Mm-hmm. yaa dégg. Euh, donte euh, dañu jël comme ni ko euh, président Sonko ko waxee jël réew ci coup d'état bi ñu ci encouragé kenn mais li tax ñu jël ko ak fañ tolloon parce que tamit nañu bàyyi ni état ay nit la ab lim bu ndaw sax nag hmm. jiite ay millions yi million yi nit li ñuy wax force reste à la loi la koy waxee déedéet. Mhm. force reste ak peuple loolu mooy dëgg. Mhm. jëluñu ko pour nguuru dañ ko jël pour sauver seen askan. Mhm. fay fi toll woon te ñooñu gis nga Ousmane Sonko ñooñu taxawaay boobu ñu am ku ci mel ni Ibrahima Traoré ak euh, nu mu tuuti. Assimi Goïta waaw. Euh, taxawaay boobu ñu am gisoo charisme bi maanaam leadership bi ñuy wane ci kenn rek lañ ko jëlee muy Ousmane Sonko. maanaam fi ne dëbbinu Ousmane sonk la ñuy dëbb parce que Ousmane ku ne xam na ni taxawaay boobu moo ko fi jëmmal fit woowu ak njom googu ak njàmbaar googu moo ko fi jëmmal moo moo réveillé Afrique gépp mm-hmm. moo tax c'est normal bu amee li sa li saa wax léegi. Mm-hmm. parce que euh, am na pays européen yoo xam ne dañu dajaloo seen biir waxtaan ba juboo mm-hmm. bokk benn monnaie. loolu bu mënee am mais mu doon loo xam ne nag comme comme li euh, saa waxoon ci éco. Mm-hmm. parce que éco bi ni ñu ko doon doxale mm-hmm. mooy gileem dellu na gànnaar rek. Mm-hmm. mook français faa bi benn benn rek. dañu war a am am am am liberté maanaam ci sunu monnaie. ci sunu monnaie nga xam ne amul kenn ku nu koy contrôler wala ku nu koy téye wala ku ci jël ay taxes ak yooyu. léegi nag loolu su ma nee am ci CBAO ah noonu moo gën parce que xam nga bu ñu ne mbooloo mooy doole ma ne mbooloo mu ànd. waaw ànd nag dafa am lu tax muy am. mooy ñu diisoo ko. ci liñ mëna andé ànde tamuy njariñu ñun ñu bokk and bi ñepp ku ne man ci gis bopam loolu rek moy moy moy moy moy moy l'essentiel bi mo mo war a mo tax mo tax mbir mi am solo. légui nak euh, comme que ñee ñoom dañoo génnoon. Mm-hmm. bu gisé ni waat gi day gën. Mm-hmm. bu ko défé liñu liñu bëgg jëmmal muy mom suñu bop ci lépp. man mm-hmm. na am ñom ñu waat doon benn mo ëpp solo parce que lo bi amu solo. waaw. lool loolu la dañ loolu ama acte bu ñu saluer la waaw d'accord saa ba tey lu ñeel ci wàllum actualité ak euh, jàpp bi nga xam ne jàpp nañ ko Abdoulaye sekk muy doom ci Idrissa Seck di turandoo ci mais euh, maître Abdoulaye Wade mi fi nekkoon président ñu gis euh, démb ki nga xam ne mooy Aly Nguer bokk ci ci ci ci parti réew mi génn ne li undu jàpp bi yëpp mooy complot daal di accuser ñi nga xam ne ñooy actualisé bi fi nekk maanaam le président